moo fi nekkoon. il a rejoint sa famille naturelle. voilà. Hmm. Euh, Diorin par rapport ak Déthié ak li euh, nga xam ne ñu ngi investir si si cinq premier liste nationale tey waxtaan naag Pastef wala Ousmane Sonko ba dem ne ñoom lay jàppale si élection législative yi euh, nan nga ko jàngatee trahison la wala c'est c'était normal. bon. moi je pose des questions quand même. Hmm. du ma juger mais je pose des question que euh, par rapport ak liste bële euh, euh, taxaw sàmm sàmm kàddu nuñ ko investiré léegi bu fekkee nii gagné na ndax day continuer maintenir son post de député wala dafay dafay démissionner. loolu leeral na ko moom si conférence de presse bi. day démissionner. nee na même suñ ko suñ ko falee. Mhm. moom day démissionner. mais peut-être que fal nañ ay nitam tamit comme comme ñu war a nekk euh, prétendant député est-ce que ñooñu tamit dañuy démissionner topp ko question la quoi bon est-ce que du faussé ñële seen programme mais bon li nga xamante ni loolu def moo gën a cohérent moo gën a cohérent hmm. maanaam euh, rejoindre euh, mouvement présidentiel bi rejoindre Pastef parce que ñoom ñaari def nañu benn chemin di lutter contre di xeex système bi. Hmm. kon euh, bu fekkee ni ñoom seen objectif ak ba ñuy former yeewu askan bi moo doon xeex système bi pacte bi ñu tegoon mooy que ne dañuy ànd dem parlement euh, mais élection municipale après dem législative bu ñu fa jógee présidentielle ku nekk mën na def cavalier seul. Hmm. mais ku génn ci ñun ci deuxième tour moom la ñëpp di jàppale pour que ñu jëlee fi système bi même bu fekkee ni seen yoon boobu bëri noonu na ay turbulences yu ci Euh, mais intention bi mënoon na nekk benn. Mhm. comprendre nga léegi nag bon je vois pas que est-ce que euh, ils se sont vus ils ont décidé de dépasser toutes les turbulences yoo xamante ni expérimenté expérimenté nañ ko ñu dem à la hauteur teg Sénégal seen kanam bu ko defee moom mu rejoindre euh, Pastef mooy gën a cohérent parce que man bële dama ko gisoon alliance de contre nature. waaw. pourquoi alliance contre nature. Hmm, parce que mënuloo ni da ngay xeex système bi ànd ak sa collègue nga nekk ay euh, ay ay ay ay ay ay frères wala ay euh, ay partisans. Mhm. nga ne da ngeen xeex système bi ba yàlla dogal kenn ci yéen seen groupe euh, jëlee fi système bi. yéen ngeen wëlbatiku di opposé kooku kon dafay mel ni yéen du système bi ngeen doon xeex da ngeen doon utiliser sénégalais yi pour pour pour seen pour seen besoin personnel. mais jëriñ réew day am opposition tamit voilà. opposition ok d' accord mais opposition de opposition de qualité opposition d' idée opposition de. opposition de de de de boo xamante ni dafay dafay dafay def des kii de constructif quoi quand parce que moi j'ai bien apprécié sorti Amadou Ba bi bërki dem il s'est comme un opposant comme quelqu'un qui connaît l'administration qui connaît le système comme quelqu'un boo xamante ne xam ne état nu muy doxee mm-hmm. ba nga xamante ne moom ba muy ba muy ba muy critiquer dafa def critique yoo xam ne leen kii ci xam-xam la ko teg tu mm-hmm. xeetu opposant boobu lañ soxla mais pas opposant boo xamante ni tàgg sante te sante xastante werante lu lu lu jàpp tibb tànk topp tànk je ne sais pas lu waay def bu ne bu kii bu damay wax suba cinq heures nga ne damay wax man dix-huit heures te xamoo lu mu a wax te pourtant bu kii ne damay wax vingt deux heures nga ne vingt quatre heures damay wax te xamoo lan la war a wax donc loolu du opposant mm-hmm. loolu c'est du bordel <laughs> tu vois donc euh, opposition ok te jii Déthié bu fekkoon ni dafa naan dafay rester moom personnellement ci opposition bi bañ a rejoindre Pastef ak euh, gouvernement bi Restel yi dafay opposé wu mais dafay def rivalité d'idée avec Pastef <laughs> tu vois mm-hmm. su boobaa mën nañ ko accepter moo gën a cohérent mu bokk ci bokk si euh, bokk si coalition ànd ànd sàmm sàmm sa kaddu quoi moo mm-hmm. gën a cohérent mm-hmm. vraiment comme tii tamit moom nu mu ko waxee yow mënoo nekk euh, candidat présidentiel am parti ba pare wëlbatiku euh, ñuy dem ci élection législative nga war a samp sa parti pour xool parce que élection yi ñu jëm ni deuxième tour présidentiel deuxième tour présidentiel parti yu bëri dinañ natt seen bopp fi ñu toll ci peuple bi mais yeneen parti yu bari dinañ seey. Mm-hmm. dinañ dem retraite. Serigne Déthié dafa mel ni da doon xaar ku ko piste ndax conférence presse bu njëkk bu mu njëkkoon a def <laughs> ne woon na ma gars yi dama leen gëj a dégg kenn woo waaw mais man ma jàpp ni Déthié Fall li mu def nii dafa nekk di réparer benn erreur politique bu mu def. erreur politique. waaye parce que dafa def erreur politique. si parce que gis nga choix bi mu defoon dem ci sama kàddu yi. Hmm. c'était pas un choix logique par rapport ak conviction parce que mënuma concevoir nga ànd ak ay nit dem ànd ak ñoom ci ñaari coalition ñu tëgg coalition bu dëgër mm-hmm. coalition boo xamante ni en matière de stratégie mm-hmm. yow la nga si contribuer bëri na bëri waaye goo xamante ni ay félicitations nga si jële mu di coalition Yewwi Askan Wi mm-hmm. ak résultat yu mu jur yëpp ak lu si am si liste yi yëpp conviction dugal la ci principe jaxasoo liste yi dinaa si ñëw loolu yëpp am si toujours le même nga accompagner régime bi ba ñu accéder au pouvoir ci ay ah, ci idéologie ñoom bu ñu gëm donc tey ñoom ñu gagné soxla assemblée nationale majorité pour mottali seen yéene seen yéene mooy ñoom la nga xamante ni aujourd'hui pare nañ ko pour ay réformes yu am solo pour mën a mën a mën a mën a euh, doxal Sénégal léegi nga bàyyi fa ñoom ñu dem ànd ak def beneen choix politique choix politique bi nga def cadre bi nga bokk def intercoalition ak yow ña nga ne woon ñoom lañ fi jëlee démb parce que dañoo yàq réew mi mm-hmm. Mm-hmm. ña la barricadé woon tere woon la sa biir sa biir même maison de parti nga bañ fa def sa point de presse xam nga loolu c'est paradoxal par rapport ak moom démarche politique bi nga xamante ni moom si la ko nit ñi xamee woon. Mhm. te choix bi mu def lu tax ma ne dafa ñëw pour réparer une erreur politique monumentale. Mhm. parce que si élection lañ jëm mais bu ñu demoon élection euh, élection euh, campagne électorale mais décc du am thème. du am thème mënul bokk ak gars yi tam yi ñu abordé lan lay wax comme thème jox leen ñu assemblée nationale ñu teree liggéey gouvernement bi sañ na koo wax moom mi accompagner gouvernement ba jël nguur du am thème moo tax contexte bi mu ko defee nii xam na ko moom. wala Déthié ak mu toog benn campagne. benn benn meeting loolu xam nga dafay doy waar. Mhm. loolu nag dafay doy doy waar mais ak lu waaye mën a wax itam moom wax dëgg yàlla def na erreur politique erreur politique boo xamante ne nag mën na jouer ci crédibilité am intégrité am. maanaam daa yéex a dem Pastef depuis le début non dafa warul woon a dem. waxuma dem Pastef de fee la warul woon a dem. Ah, kon dafa yéex a dem Pastef laa wax. dafa yéex dafa warul woon a dem fële bay ba fay jugee waat di dem Pastef ne serait que pour la cohérence rek waru fa woon dem pour l' objectivité waru fa woon bokk